dajale nañ ndax ñëw ci yow nga ne leen ba dañ cee def dara faw nga laaj laaj ko ci ndigal mu jox lañ ci ndigal ba noppi nag euh, soññee ci ngir xam le ne lépp yu suut wane Serigne Touba wane liggéeyu Serigne Touba wane li Serigne Touba bàyyi wa jaalaha kalimatan baaqiyatan bi yi ndax bu Cheikh Mouhamadou Moustapha farluutoon kon Serigne bi du ñibbi si Touba nee naa bu mu ko ma boroom fi yoon wi agsi tey di téeméeri at wane na ne Sëriñ Tuubaa noppi na ci yoon wi kon nag loolu wane li fi jaar ci diggante bi lépp ci mboolem kooku fi ma sa wutu tàmbale ci Cheikh Mouhamadou Fadil ba ci Cheikh Abdoul Ahad Cheikh Abdoul Khadir ba ci Serigne Saliou ba ci Cheikh Mouhamadou Lamine Bara ba ci Cheikh Sidi Mokhtar ba agsi ci moom mii nga xam ne mooy Cheikh Mouhamadou Mountakha yàlla na suñu doon dolli dolli ay wéram dolli kattanam ba mu yàgg taxaw liggéey Sëriñ Tuubaa bi mu wax ne ne biñ ko ko yëgalee moom daa wax ne lim ciy soññee mooy ndegam xam na li ci war lépp moom la waroon ba soñoo ne bokk kenn ndax jàpp na ne positif am diggam ak Sëriñ Tuubaa ñoom sakkuñ ko laaju ko ko waaye moom ci boppam moo wax ne wa yu'thiruuna ala anfusihim walaw kaana bihim xasaasatun ndegam moo fi nekkee Sëriñ Tuubaa jàpp na ne moo war a moo war a gàddu lépp def ko def ko addi Sëriñ Tuubaa moo taxit mu yëkkati eh, téeméeri million ne da ko bëgg def ci bis bi ngir li koy dundale li koy waaje lépp jàpp na ne ku ko ci fekk fekk si ko ca waaye loolu moom addi boppam la joxoon diggam ak Sëriñ Tuubaa la ndax lii xam na ne yow da yaa fi ne ci kanam jóg di ko taxaw waaye yoon mburu yëpp ko bokk yoon yëpp nga koy defal da nga yoon yëpp nga koy defal nag te moo fi Sëriñ kon jàpp na lépp moom la kon nag mi ngi jot laa dugg cantam ci yow ak ngërëmam ci yow ak ci njaboot gépp di ñaan yow itam nga yàgg wuutu sa waajuru tedd wa ndax xam na cër bi nga ko sédd ak fi nga ko teg ak seen diggante ni mu demee ak doyloo gi am ci yow ak yaakaar gi am ci yow ba am na bis boo xam ne wax na ma ci làmb ñëw ne ma sëñ Ahmadi eh, ngatt moom suñ tuwaale ci man loolu yàlla toog kon loolu xam naa fi mu la teg kon ñu ngi sant bu baax di jeexal foofu kàddu yi di ñaan bis bi itam muy bis boo xam ne dana jëriñ adduna sëpp ndax adduna sëpp mën nañ ci jëriñu ndax lu am ci yoon wi rek ci téeméeri at yii la waxtaane nag eh, li sëriñ bi def rawat na njaareem ji nga xam ne sëriñ Tuubaa yàgg na fa ak liñ ci war def lépp xam naa ñoom danañ ko leer ci yenn jotaay yu gën a yaatu waaye sëriñ bi daal mi ngi lay sant bu baax di ko di ko tàbbi tàbbi ci biir liggéey bi di ko defaaleel mboolem ko yaakaar sëriñ a itam هل دلكم على تجارة تنجيكم من عصاب أمين تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم مرهم جل دور كبير تا سنو كلفة قلت لك سنو سالو دانا وحنا بوكونا سنجر نجو الأدية نانا سنتو هذا وحنا بوكونا سنجر نجو الأدية نانا فك فدار نكم دفدر نانا فك فدار نكم باركم وهذا نانا فك فرو بار نكم باركم كونك أدية جوه لو تابلو asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu asalaamaaleykum sëñ Basiru maa ngi lay nuyu ak ñi nga àndal ngeen ndawal sëñ bi mu yebal nga ñëw di teraanga ji ñu ngi sant di ci di ci gërëm suñ bi nag la waaye mën naa yées lii te ñu gërëm ko waaye nag yëf yi nga xam ne eh, dajale alal taxut ñu def ko wala eh, lu ci def rek réer ni ci noonu dëgg la yëf yi dëgg la noonu ñëpp ko bokk yëf Sëñ Tuubaa gi kon noo ko sosoon Daaru Xudoos sosoo moo tax jàpp téeméeri at yi waaw ko ci màggal fàttaliku si eh, bu jurata def it ndigalul sëñ bi leen ci am dafa ko def moo fi sëñ Tuuba kilifa yoonu murit lu waay di def ci biir yoonu murit moo ko war a jiite kon nag léegi lii nga xam ne moom lañ koy defal ci def nag sant nañ ko waaye séntu woon ci séntu woon lii moo tax bari na fi noonu lool lool te nañ ko ci gërëm di ko sant di ñaan mu ga def lu mel nii te daje ci ngërëmal sëñ Tuubaa mi tax muy jëf xam na nag ni mu jàppe jàppe ko yoonu murid yëpp muy xër gu mu xër ci sëñ Touba lépp lu bokk ci moom fonk na ko jàpp na ko daanaka ñëpp la kon li nga wax it xëy na dafa baax rek waaye man wax dëgg yàlla lu ma def li may jàppee wax dëgg yàlla xamoo ko waaye nag moom ak baaxam xëy na moo seetlu xam ne tax mu wax ko daal waaye nag ne ko moom ko ci gërëm ko sant te ñaan loolu ma jàpp ci noonu yàlla dëggal ko waaw jërëjëf jërëjëf